yooyu ni ñu leen id idgaame la jàngale mu ne wal qiyaasu lay qiyaas fi idgaami maa yudgam si idgaam lañ war a idgaam min tilka ci yooyu la xaraf xalbul awal changé bu njëkk bi ila saani ci bu ñaareel bu njëkk bi moom ngay jox melo xaraf bu ñaareel bi dégg comme zakara gañ waxoon xam nga boo ko déggee iftaala iftakara bu ñaar lañ ko sànni def ko daal léegi xaraf bu njëkk bi di za moom ngay def daal muy iddakara loolu mooy xiyaas dégg nga it dakara xaraf bu njëkk bi danga koy jox masque xarafu ñaareel bi ndax ñoom ñaar seen maxraj dafa dafa jege nga daal ca kaw ga lay génne kaw gémmañ ga kaw yi kaw ya maanaam cosaanu bëñi kaw ya zaal ci cet bëñ yi lay xiyaas nag mooy zaal ba nga jox ko melo daal ba léegi-léegi safaan ba am ndax la moo ko waral moo tax mooy lanaak sa safaan ba duñ ko def mukk mooy bu ñaaree ba ñu jox xaraf melo xaraf bu njëkk ba duñ ko def illaa isa daan lu mooy mu xoote alxaalu situation bi li zalika ci loolu comme lañu waxoon ci lu mel ni isdakara istalama ñu bu ñaaree bi lañ jox melo xaraf bu njëkk ba waaye loolu yenn yenn rek lañ koy kon baat yi seen xaraf yi jege buñ leen idgaam dégg nga bu njëkk ba da koy jox da koy delloo ci bu ñaareel ba waaye bu ñaareel nga delloo ko ci xaraf bu njëkk ba loolu situation moo koy waral ci yenn baat yi dégg xam nga istalama isdakara mais zaar ak daal jege gi ñu jege wax nañ fu am na ñetti anam mën nga ko bàyyi noonu isdakara mën ngaa jël bu njëkk bi jox ko xarafu ñaareel bi muy isdakara loolu mooy xiyaas nag mën ngaa jël bu ñaareel bi jox ko xarafu njëkk bi muy isdakara loolu du xiyaas yi di xaamil xuruuf yi mutaqaariba nekk na ci dëqaam xaraf yu jege yi fii baax ci yenn yi salaasul ahkaam ñetti at xaraf yi nga xam ne dañoo jege pour idgaam leen li leen li am na ñetti xaraf benn bi al wujubu mooy war ñaareel mooy imtinaaw jomm maanaam ñu bañ ko ñetteel mooy al jawaazu dagan fal wujubu fa mu fi laami taarif yi ci laamu taarif maa ahadi xurufi shamsi ànd ak benn ci xurufu shamsi yi xurufu shamsi yi xam nga al ci cat làmbañ yi la bokk al mooy laamu taarif hmm? boo ko bu dajee xurufu shamsi yi araf yi dañuy jege ñaareel yooyu idgaam ko dafay war taa ak saa ak daal ak va ak laam ak nuun li nga yëpp daanaka ci ceet làmmiñ bi la ak ci wala ci tuñ la xuruful al taarif bu dajeeg benn ci xurufu chamsi yi foofu idgaam gi dafay war ak jege moo koy waral at ngay wax as add av all an ba mu jeex hmm? ash shamsu وفي اللام ساكن لام بن سكون غيرها غبوك تك الك تعريف الجنا خا دافا نيو ديف بعد المعرفه ما راي عندك راه لام بن سكون بو عندك راه فوفو ادغام غا دافاي دافاي وار دافاي وار دافاي نور ما يكي بدين nga ne bar rafaahu laahu ilayhi laam ak laa seen maxraj dafa jege bar rafaahu laahu ilayhi dafa laam gi dañ koo sukkoon waaye bokkut ak alak taarif kon bu dajeg raa foofu eh, idgham ko day day war bar wa fi nuuni saakin am nun buñ sukkoon maa silatin ànd ak juróom benn xaraf li may xuruf idgham yi jàngoon ci tajwid arbaatun ñeent fiyaas ci ñoom bi xunna idgham gi dafa ànd ak xunna nun guñ sukkoon bu ci yaa toppee dañ koy idgham ànd ak na dégg nga may yatihim bu si nun toppee noonu bu si mim toppee noonu bu si waa toppee noonu loolu mooy idgham gi jàng si naa ne yeneen ñaari araf bi laa xunna leen xunna waaye moom allaamu mooy laam wa raa bu ci raa wala laam dañ koy gi dañ koy idgham ca waaye kenn du ko gunna ko min rabbihim min rabbihim wa tuqlabu danañ changé miim ak miim maal ba ba nun buñ sukkoon ba ànd ak ba dañ koy def miim hmm? loolu mooy iqlaab dégg min bayni nun bi dañ koy def miim loolu yëpp jege taxaaru jege maxraj moo koy waral kama takk na ko nun jiitoo gis nga lii axkam tëj bi dañ ko indiwaale waaye boo xoolee dafa jël ci wàllu sarfu mu di ko jàngale dégg nga wa tasaru dana feeñ maa xurufil xalqi ànd ak xarafu xalqi yi wa taxtafi dana nëbb maal baaqi ànd ak yi des xurufu xalqi yi mooy amza wal haa wal ayn wal haa wal xayn wal xaa nun bu ci benn ci xuruf xalqi yi toppee kooku nun gi day feeñ doo ko def idgaam min ahli ngay wax yii yëpp dañ koy yaa ngi si tajwid waaye yii boo xoolee deelu saf tamit wa tax tafi danañ ko nëbb maal baaqi ànd ak yi des yeneen xaraf yi des mooy huruful ixfa yi hmm? mooy yu bokkut ak yi mu wax rek bu mun guñ sukkoon bu ci benn si xaraf yooyu toppee dañ koy idgaam comme kaaf men kum da nga koy nëbb da nëbb nuun gi bu baax maxraj bi du génn bu baax te doo ko moo di ixfa kon falaa ñeel na nuun xamsatu xaalaat yi juróomi xaal nun guñ si kon xurufu ñeenti xarafi idgaam yi jokk ca mooy yen mu dañ ko idgaam mu ànd xunna bu dee laam ak raa ci topp idgaam ci dudul xunna bu dee baa topp ñu soppi nuun bi def ko miim bu dee xaraf xalqi ñu si topp nuun gi dee feeñ bu dee yeneen xaraf yi si topp nag nuun gi ñu nëbb ko duñ ko feeñal duñ ko duñ ko idgaam juróomi xaal la kon fii lay idgaam xaraf wu jege morom xaraf di ware benn al taarif wala al guñ sukkoon te du alu taarif raa topp ca wala nun guñ sukkoon ci xaal yi ma la wax waaye boo xoolee fañ ko feeñale sax foofu idgaamuñ ko wal imtinaaw idgaam fañ koy aayee ngir jege ñaare ref mooy fi idgaami ahrufu dawiya mishfar xarafi dawiya mishfar duñ leen idgaam mukk fii maa yu xaaribaa ca la leen jege doot duñ ko dugalanteeg benn xaraf ndax ñoom ñaar dañoo jege ndax doot dafa am sifatu istitaara mooy sa cet ma bi lay génne ba lamañ ba jeex génn waay bi dafa gudd te boo ko idgaamee istitaaratu googu mel day dem moo tax mu ne li an na istitaaratu daat yi ndax gudd ak daat wa moo tax duñ ko mën a idgaam yaa dafa am xarfu liin boo ko idgaamee ci moromam xarfu liin gi day deñ min xawf wa liinul yaay ak liinul waaw ak waaw boo ko idgaamee day deñ mim mim dañ ko war a xunna te boo ko idgaamee xunna gi du mën a feñati moo tax woo xunnatun mim dafa war tafa shi mooy kaddu gi tasaaro ci biir gémmiñ gi min charri gis dafa tasaaroo wal faa yi moom it dafa war a am ci biir euh, tafa shi fa ah, waaye nag jar naa xoolaa wa takraar raay raa dafa war a am dafa am sifatu takraar hmm? waaye bëgguñ ne muy baamu si tajwid bu bëri mais la raa ci luxutaan rek baat bi day takraar yooyu yëpp tazur nañu dañ maal idgaam day idgaam xaraf yii boo leen idgaamee seen melo wu ñu waroon yore sifa ba mooy dañ te dañoo bëgg sifatul xaraf ba des fa xam nga sifatu xaraf mooy teqal diggante xaraf yi ñaari xaraf danañ bokk benn génn waay mais sifaat yi wute leen teqale leen dégg comme ni nga xamee ñaari nit ñu bokk benn ndey ak baay mais kii xonq kii ñuul kii neex deret kii naqadi deret loolu moo leen loolu moo leen wutal dégg nga hmm? dégg nga su ko defee bañ si fay xaraf yi meloo xaraf bi dem moo tax xaraf yi mooy doot ak waaw ak yaa ak miim ak shiin ak faa ak raa kenn du leen idgaam ci beneen xaraf ngir dañoo jege boo leen idgaamee sukkoon leen rek seen melaw yi day deñ wa idgaam naxwa sayidun nga ne ko ah sayidun pourtant sayidun la woon de yaa waaw daje bu njëkk sukkoon ñu jël waaw gi soppi ko yaa def ko idgaam mu a loolu idgaam la mu ne déedéet parce que bañ waaw gi def ko yaa rek kon idgaamu mislee ni la waaye nekkul idgaamu mutaqaaribay ni nekkul ñaari xaraf yu jege ñuy di xam benn bi ci benn bi waaye ñaari xaraf yu bokk la ñuy di xam benn bi ci benn bi kon yii buñ ne duñ it xam benn bi ci benn bi mooy bu fekkee nekkul ñaari xaraf yu bokk waaye ñaari xaraf yu jege lañ mahdiyun xam nga mahduyun la ismu mafon la mahdiyun mooy kuñ jubal xadaa yahdi comme xadaa yaqdi ñoom maqdiyun fo mahduyun la moom waaw yaa daje bu jiitu sukkoon njër waa def ko yaa كسر الجيت واقع منك مهدي يوم مفيد كل جبل من فوفيت نيار يا رجلا دخ واقع سانس نقول في أكون إذا غام مثل لا وينكو إذا غام متقاري بين إذا إذا غام نيار حرف يبوك وينكو إذا إذا غام نيار حرف يو يو نرو دين problem on that next. mu ne loolu laa yara du du delloo li ñu wax ne ah xaraf yi dañu leen idgham li an i'lala ndax ràggal gañ leen ràggal jaalumaa def na leen mislee ni ñaari ne nekk ñaari xaraf yu niroo kon xarafi dawiya misfar doo si jël benn idgham ko cam beneen xaraf ngir jege gi mu ko jege mais mën ngaa jël benn idgham ko ci beneen bu fekkee ñoom ñaar benn xaraf lañ ñu niroo xam nga lu ma wax kon idgham ñaari xaraf yu jege fii lañ koy bañee wal jawaas léeg mu dagan dafa am ñaari xaraf yu niroo dana dagan fii ma adda ñaari xaraf yu yu jege laay wax dana dagan fii ma adda zaalika ci lu yii bu warut xaayewuñ ko rek dafa dagan mu ne ko misaal mooy naw idgaam nuunu mutaharika ngir idgaam nuun gu maas fi xarfin ci xaraf min xurufi yarmaruuna ci xaraf yarmaruuna xam nga nuun guñ sukkoon bu ci benn xaraf ci xaraf yarmaloo yi dajee da ngay jël nun gi idgaam ko ci xaraf woowu benn mu ànd ak xun na ci yan mu wala ci lu na ci xarafu si laam raa bu leen nun nag nga idgaam ko benn ci xaraf yi dafay dagal dégg ko def mën nga ko bañ a ñàkk def boo koy idgaam nag kon nun gi foo nga sax ko def ko maska sukkun ko ci xarafu ci topp comme que ñaari a yi jege la rek diire dafa mas mën nañ ko yéex a xam waaye mën ko bañ a yéex xam wanaax wa taa ak lu mel ni taa ak saa ak daal ak zaal ak too ak va bando a yenn li fi bando ci yenn yi xaraf yi nga yéex xam lenn li ci lenn li kooku dafay dagan mën nga ko def mën nga ko bañ a def aw fi zaay wala nga yéex a xam leen ci zaay wa ak siin wa ak saat dagan na bañ a dagan mu jox na ci misaal ci taa mën nga ko yéex a xam bu dajee ak saa mën nga ko ci yéex a xam ñu ngoo ci bañ bu dee daal bu dee yëg daal bu dee yëg taa bu dee yëg va dégg nga kama taqul comme ni ngay sakat sakata noppi na saabitun nga taa ak saa daje ne wax sakat saabitun idgaam ko man nga wax sakata saabitun bañ ko idgaam wala nga ne daarimun kooku taa ak daa wala nga ne zakirun wala nga ne taalibun wala nga ne zaafirun wala nga ne zaydun dégg jërë kii sax maanaam gis nga xaraf yi taa saa daal zaal too zaa xaraf yi boo ci am benn ci moromam yi topp ca bu la neexee nga idgaam ko bu la neexee nga bañ ko idgaam dafay dagal xaraf yi boo ci am zaay topp si wala siin wala saat mën ngaa jël xaraf yi idgaam nañ ci zaay gi comme nga ne sakkat sakkata zaydun sakka zaydun wala nga bañ koy idgaam wala sakkata saalimun sakka saalimun wala nga bañ wala nga bañ ko idgaam dafa jox misaal si taa rek waaye boo jëloon saa xaraf boo xam ne saa moo ci mujj taa topp ca mën nga idgaam mën nga bañ wala daal wala zaal wala taa wala za boo jëloon taa tamit to daal topp ca wala taa wala saaw mën nga ko idi xam mën nga ko bañ a idi xam moom la jox ne ne comment taqul comme ni nga waxee sakkata noppi nga saabitun saabit aw daarimun wala daarim wala sakkata daarimun wala sakkata zakirun aji tudd yàlla wala taalibun wala zaafirun wala zaydun wala saalimun wala saabirun yooyu mën nga ko idi xam mën nga ko bañ a idi xam kon loolu kii la idi xam foofu dafay dagal aw taqul wala nga wax ne labbasa لبس صحنا لبس تاجر كوميسان او دابر او داري مو دارم لبس لبت تاجر ولا لبت دارم خمغا سا اك تا وي جيغين اك دال باسكو بي سي تاكم كومل بي سي تون تشتوني غي دا خام لين اغي نياك لي دا خام دا فاي دغال رك الى بام جيخ او تقول ولا نغ واخ مو جيخ مثال دال حقد حقد تاجر او دارم كم حقد soxar na daal la mujjee bu ci taa toppee wala daal wala demee na mën nga idgaam mën nga bañ a idgaam si daal lépp loo xam ne waxul la dafa war idgaam ko dafa war waxul la ne dañ koo tere bu dee ñaari xaraf yu jege génn waay la idgaam leen dafay dagan wala mu dagan gannaaw boo xamee ne bu nekk fu muy génnee ñaari xaraf yoo xam ne seen génn waay dafa jege idgaam leen dafay dagan wala mu dagan تي قاف اكاف دا ادغام كو دافا وار بوكو تيم لو خن دافا وار دا دا بوكو تي حرف في الدوي مشفر كون ادغام كو دافا دغن لم نخلقكم غي دخام كو لم نخلقكم غبن كو ادغام هم سوكو دافا لول ما ييغا خامن ني مو اجي سي والو إدغام نيار حرف يغا خامني متقاربين لا كون جيخال لا سي إدغام متقاربين اك إدغام مثلين نريد الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلى أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته